ki fi yor cër ak i dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo ku may Ababakar ki fi yor cër ak i dogal am zañ zañ ci diine te yënguwul ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn dëkkaaliwul ki mu doon moom. kooku mooy Ababacar. Khalifa man bay na samaawaat ki mu doon moom. kooku mooy Ababacar. Khalifa man bay na al arde. ki mu doon kooku mooy Ababacar doon du Maodo doon du Cheikh soog a dem kooku mooy Ababacar ka ca Barzaq jëf laante ba tey ma kooku mooy Ababacar dur ga ca barzaq tey jëf laante ba tey ma kooku mooy Ababacar ga ca barzaq tey jëf laante ba tey ma kooku mooy Ababacar yor cër ak dogal ami zeñ-zeñ ci diine te yënguwul kooku mooy Ababacar ana soppey sëñ Babacar yi bu nu sàggan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Mansour bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Abdo bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Habib Si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Mansour bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Cheikh Tidiane bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Abdo bu nu sàggan ci Babacar Bunu Mbaye ana soppey sëñ Mbay Mansoor yi bu nu sàkkan ci Babacar Mbaye ana soppey Sëriñ Mawdo Si bu nu sàkkan ci Babacar Mbaye ana soppey sëñ Mbay Abdo bu nu sàkkan ci Babacar nga la yéen bokki taalibe Cheikh yi bu nu sàkkan ci Babacar nga la yéen bokki taalibe Cheikh bu nu sàkkan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu nu sàkkan ci Babacar Mbaye ku dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ci dun ñëw ñu dem bala ci bi ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ci dun ñëw ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiito newul fenum mbay la ko jiital newul fenum mbay dafa ànd ak mayam yu doy mbay su bu jiito ñu topp ca ñun bu nu jàqee ma jàlle noonu mbay bu nu tiitee mu warloo mbay ba ko woowee mu wuy si la mbay bu nu jàqee mbay bu nu mbay si lal waa baytul wilaayati mbay dafa jëmmam ci diine gi mbay moo rangoo xilaafa ko bàkkul ci diine gi ko di mbay ñu xañ ko ko mbay xaw soo um nga ñu maam xalifa moo ëpp làmbi ñu maam ñu maam xalifa moo ëpp làmbi برنا كولك يا زيني برنا كولك يا زيني برنا كولك يا زيني باي ndax boy lëg ya zeyni bay bés boy faatu da ngay nelaw nelaw ya wooji aljaani bi cheikh buy faatu da fay nelaw nelaw ya wooji aljaani bi cheikh buy faatu da fay nelaw nelaw ya wooji aljaani ay ana ñi bëgg sëñ baaba kër si bu nu sàggan ci baabakar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiitoo neewul si nun mbay la ko jiital neewul si nun mbay dafa ànd ak maayam yow day mbay dafa ànd ak maayam yow day mbay dafa ànd ak maayam yow day mbay si bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàkkee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wàlla noo mbay ba ko woowee mu wisi la mbay bu nu jàkkee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wàlla noo mbay ba ko woowee mu wisi la am bu nu jàkkee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wàlla noo mbay ba ko woowee sëriñ si la mam bu nu jàqee mu jàlle noo bay bu nu tiite mu walla noo bay ba ko woowee mu wuy si la njiggi mu siiraat mbay jàlle noo ay fi ay si lam ay ñu naan nandal ñu kaw ñu naan nandal ñu kaw Sara suñ maam ca kaw Sara mandal Sara ëllëg ca kaw Sara mandal ñu Sara maam bu naane ngi bu naane maam bay bu naane ngi bu naane maam bu naane ngi bu naane maam bay bu naane ngi bu naane maam bu naane ngi bu naane mbay bu naan mbay ba gaalano mbay bu naan mbay ba gaalano góor gi la laqoon kenn yi dégol nan tuuti ma kooku mooy ababa ki la laqoon Ndakaaru ge bëgg xar moo di kooku mooy ababa góor gi la laqoon kenn yi dégol nan tuuti ma kooku mooy ababa ki la laqoon Ndakaaru ge bëgg xar moo kooku mooy ababa bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar sàggan ci Babacar ay bu ñu sàggan ci waawan bu ñu sàggan ci Babacar ay bu ñu sàggan ci Babacar ay bu ñu sàggan ci Babacar ay bu ñu sàggan ci waawan bu ñu sàggan ci Babacar ku ko def sooro dem bala bu ñu sàggan ci Babacar ku ko def Cheikh Tidiane bala bu ñu sàggan ci Babacar ay ku ko def sëñ Abdou bala bu ñu sàggan ci Babacar ay ku ko def sëñ Mbaye si bala bu ñu sàggan ci Babacar ay ku ko def Maodo si bala bu ñu sàggan ci Babacar ay nitu yàlla akub sëriñ daa bokkul sa fedda nitu yàlla akum sëriñ daa bokkul sa fedda ay bu ñu saagal ci baaba ay bu ñu saagal ci baaba ay bu ñu saagal ci baaba ay bu ñu saagal ci baaba ay bu ñu saagal ci baaba la bu ñu saagal ci baaba ku ko def soora dem ala bu ñu saagal ci baaba ku ko def Cheikh Tidiane ala bu ñu saagal ci baaba ku ko def sëñ Abdou ala bu ñu saagal ci baaba ndax nitu yàlla akum sëriñ daa bokkul sa fedda nitu yàlla akum sëriñ daa bokkul sa fedd ay bu ñu saagal ci baaba lay bu ñu saagal ci baaba ay bu ñu saagal ci baaba lay bu ñu saagal ci baaba àndandoo bi neex na fa mbay àndandoo bi neex na fa mbay àndandoo bi neex na fa mbay taqaloo bi sox na fa mbay yal na yàlla xoole ñu mbay sunu ngëm di yóbbu ko Seydi Mbay si lii la tëral nañ ci jaar te bañ di fesal Seydi Mbay si lii la tëral nañ ci jaar te bañ di fesal yal na yàlla dolli sagal xadaraam ca wettali ko nañ di ñaanal waa xadaraam yàlla dotti fay sutura am nañ ji boy loxo yi nañ ji boy mbay nee nañ ji boy loxo yi nañ ji boy mbay nee nañ ji boy Tijaan nañ ji boy Sénégal nañ ji boy Sénégal nañ ji boy Tijaan nañ ji boy Xaadir nañ ji boy Laayeen nañ ji boy Murit nañ ji boy loxo yi nañ ji boy Sénégal nañ ji boy Sénégal buñ xuloo loxo yi nañ ji boy mbay nee nañ ji boy buñ xuloo waaw waaw xaju fii buñ xuloo waaw xaju fi mi gise te waxtaan nunu ne noo fi ne nunu ne ne ne ne noo fi ne nunu ne ne ne ne noo fi ne nunu ne ne filaay bay na nan di bo damay nan di bo bay na nan di bo damay nan di bo damay joxonte len joxonte len joxonte len joxonte len joxonte len joxonte len joxonte len damay nan di bo bay na nan di bo damay nan di bo damay nan di bo bay na nan di bo bay nañu wayloo te toppi koy bay من كل وصف حميد حاض أفعال طف دين رجاء البراء يا يوم مصطفى حليم من كل وصف حميد حاض طاعة الهادي محبته كذا الطباء الذي يأتي من الخير الحاج مالك من كل وصف حميد هذا أفعال مالين لا على ما تحالون إن أعظم استعمال سنته من جملة سيد الهادي مالين من كل وصف حميد هذا أفعال مال وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تخسر العالم من كل كثرة الشوق في لقيا لسيدنا من العلامات قبل ذاك ذل سيد الحليم علمنا من كل وصف حبيبنا هذا على تفقدين كسر ذكر صلاة ثم نصرة دين به تقلق ما قد جاء من شيء الهادي والبيت من كل وزف أمين العالم علينا تعظيمه والتذات حين تذكره حب الحوران وأصحاب له الخير علم لنا من كل وصف حميد هذا عفا تعريف منه ما حويت من الأشواق والصيحة لمالك سكونها فقدما طلب المفتاح تحصدها المعرفة من كل وصف حميد لهذا أفعال تستفاد من يريد جنان القلب يسكنها فقد من طلب المفتاح تحصيها لمالك من كل وصف حميد هذا فعلا تصفى يماثل من تواضع وخشوع القلب والرحم من كل وصف حميد حال شجاعا أسحى الناس أحسن الأجمل وكان أشجاعا أسحى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وير الحزب والفن الأجمل من كل وصف أمين العالم

أهل المدينة ساء الليل فزهد الحادي مالك من كل وصف حميد هذا على كفرادي رجاء البرايا يوم سيد الحاج مالك كانوا إذا حمر بأس يتقون به وقد بدت نبي في حنين غاية في علم من كل وصف حميد هذا أفعال مرة بأس يتقون به وقد بدت نبي في حنين غاية الخير العليم من كل وسف عليم هذا أفعال عليون الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة زامتي من الخير علم من كل وصف حميد هذا أفعال karomaranye manuga tabegak sangi seba molay warniki da talib sheikh ala tara ahada min ahlihi abadan illa wasimahu fi husni wa tasyir baba tasyir fala tara يا كرم براني مالوغا تبيغا سنجي سبا مولاي وذكري لطالب الشيخ لا ترى أحدا من أهله أبدا إلا وسيمه في حسن وتسير باب سنة فلا ترى شافعنا يوما ينادي المنادي فيه لأواء يا سيدي يا, يا رسول الله قد سارا وسارا نشماني أرضاهما للعرش إسراء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما يونا سندك مدينة بابا إمامته من بين زمرته من أنبياء ورسل ذاك سيماء يا زيني يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي شيخ دني فزايو عدوهم بجمعهم قد أمهم جل في تقديم إيمان يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما يولد المولى بك مدينة حاطوا بي حولي حبيب الله قائدهم كالبدر في هالتين فالجمع غوغاء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي بك مدنا معراج صار شاد الدين زاد به يعلسها عند غر سر لجوزاء يا سيدي يا رسول الله شفيعنا يوما ينادي المنى وشكوا له اختراف معالا سبع باقي بها مجاوزا ضمن تارين وأدواء يا رسول الله شفيعنا يوما ينادي المنادي مدينة يا मदीना ما أنا अनसामा أنا سفير أمين بالأمين فتزه منه عواء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ننادي المنادي في sang مدينة في سدرة المنتهى قد نال منزلة من قاب قوسين في تقريب إيواء يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي في سنجدك مدينة مكلما بجدي ريل حمد أنا ما زال باء وصاد بعد خراؤ يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي الموت سندك مدينة مكلما بجدي للحمد باري أنا ما زاغ باء وصاد بعد غراء يا زيدي يا رسول الله شافعنا يوم ينادي المنادي څنګه ته مدینہ وافا المناجا وسا فالحاق عن خطأ على الكليم له الوادي وسيناء يا زيد يا رسول الله شافعنا يوم القيامة شيخ الخليفة نشأ والنبي فشأ ون يلام به بيض الأنوق وها شاء عنقاء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنى في sang bi ci madina fadailul fudala الشامخين علوا إعارة من عشير الفضل نجلاء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فيه من دفلني من أي فضل وتفضيل ومن كرم ومن كريم حوا في الفضل أنباء يا زيد يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي संग बिच मदीन फल मुस्तफा मुस्तफा साफा بشفوته رب البرايا بما يرضيه صفواء يا رسول الله شافعنا يوم القيامة سندجت مدينة ورحمة بثنة حسن حسين وري حان وروح أمان وسراء يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي في سندك مدينة وهو الأمين الذي شاء